ñu ngi leen nuyu kilifa gi. Euh, kilifa gi maa ngi leen di fay euh, vraiment di leen nuyu di leen ziar di jaajëfal seen ñëw bi ngeen ñëw fii ci département de Pikine commune de Djiddah Thiaroye Kaw euh, di leen remercier bu baax a baax parce que aussi vraiment li ngeen def ni yombul bon édifice bu mel ni nga xamante ni moom la Moussa le maire réalisé fii au niveau de Djiddah Thiaroye Kaw boo leen ñëwee déplacé wu bàyyi seen yitte yëpp ñëw vraiment. pour am des informations loolu lu ñuy neex la ñu ngi leen di jaaj jaajëfal. ngeen jël lu mel ni def ko fii nga xamante ne tey jeunesse bi yàgg nañ ko fay soxla ñu ko am xale yi dañ doon nekk fii ne surtout di fay seen xaalis dem si yeneen salle feneen ak feneen di fa entraîner tey ngeen am initiative bi xalaat bi fan la jógee pour ba ngeen defal lii jeunesse bi fii. Euh, merci beaucoup mon frère euh, xam nga ñun yàlla daf ñoo dimbali ñu am sens am benn maire bi nga xam ne dafa am vision muy docteur Cheikh Dieng. Euh, moom c'est quelqu'un bi nga xamante ni euh, Ablaye waat daf ko euh, yàgg ràññee ci doxalinam actuellement fi may xañoom il est le secrétaire général chargé des élections bu PDS actuellement moom mooy mandataire parti bi au niveau national bon tey ku mel noonu ku xarañ ku mel noonu bu la yàlla dimbalee nga am ko sa commune mu am xalaat yu mel nii nekkulu lu la bett complexe sportif la def fii bi nga xamee ni ñun chaque jour comme ni nga ko waxee suñu mbër yi suñu champion bu mel ni baay Mandiaye ak yeneen champion yi fi nekk d'habitude dañ daan dem exemple ci département de Pikine fi nga xamante ni moo gën a sori ñu koy defi foofu si la amee réflexion mu ne moom pourquoi pas li am exemple aux Almadies am exemple point am exemple ci département yi la moo tax mënuñu ko def ci commune bi looloo tax mu am réflexion def ko fii ci commune bi. tey ci loolu laay ñëw tey li ngeen def nii lu rëy la ci li nga xam ne mooy gox bi toppatoo ba ca war anamun nan ngeen ko mën a fas yéene daal di taxaw taxawu ko ba am suivi ba xale yi mun see am ci seen bopp ñu bañ ko féytale benn boor rek parce que boo xoolee tamit des fois day am ci yeneen commune yi mën nañ fa def dara ñu ne waa côté bi rek ci moom wala waa côté bee yëpp dañ koy gis ni muy indi ay détails lan taxawaay ngeen ciy def si yooyu euh, merci beaucoup mon frère euh, question bi am na solo euh, Cheikh Dieng euh, du quelqu'un bi nga xamante nii dafay làmbatu def xëy na avant sax ñu ko réaliser taxawal nañu exemple ay kuréel yi nga xamee ni ñoom dinañ def exemple suivi bi ba nga xamee ni li ci nit ñi di xalaat bon mu bañ a am déjà taxawal nañu ay euh, mën nañu ay jeunes yi nga xamee ni fii lañ dëkk ci département bi ci biir gox bi nga xamee ni mooy Djiddah Thiaroye Kaw incha allahu rabbi ñoom ñooy saytu lépp li nga xamee ni moom moo jëm ci euh, complexe bi nga xamee ni moom la ñu monsieur le maire defal fii bu ñu jógee ci lii ci côté jeunesse bi mm-hmm. ban façon ndimbalal ngeen jugaat tamit ci li nga xamante ni ci côté lamb toujours laay waxtaane parce que gis nañ ne ji ñu ci ëpp ci banlieue bi lañ dëkk surtout suñu côté nii sax xam nga xale yi koo wax dane dama bëgg a tere samay waajur dama am ngeen loolu dimbalee tamit li nga xamante mooy jeunesse su mais lan moo nekkaat seen vision tamit ci kanam euh, merci beaucoup toujours euh, vraiment yéen euh, laaj yi ngeen laaj yi dafa am solo parce man dama jàpp bu ñu la ko joxee parce que boo xoolee mairie département de l'état li nga xamante ni tey jii jàpp nañ ne exemple ci docteur Cheikh mi ngi koy taxawee mooy képp nga xam ne tey ñëw nga di jiite réew mi moom jàpp na ci nga xam ne dañu am vision pour jàppale ci si les jeunes moom bu mu jëlee mairie ba léegi mën nañ ne lépp li nga xam ne nii luy développer la commune de Djeddah Thiaroye kaw moom mi ngi ci. ci côté sport bi nga wax noonu ci làmb yi. mi ngi xool exemple les jeunes au lieu ñu def làmb kese mais defe na ne làmb ji nañ ko boole exemple ay métier c'est important bañ na ko dafay moom dafay def ay formation sac année di ko jagle exemple les jeunes de Djida Thiaroye Kaw kon kooku yàccaaralul exemple ba ñi nga xamante ni tey ñoom ñooy jeunes yi tey bu ñu defee sport parce que man dafa am li nga xam dama koy faral di wax te moom lu mu gëm la sport du métier soo déggee man du métier tey ji am na si li nga xam ne yenn gàllankoor yi boo ko ci amee rek mooy dootoo defati dara tey boo nekkee exemple ba jàng sa métier mooy nga def mécanique nga def exemple tôlier nga def tailleur ak ainsi de suite comme ni ñu ko mën a waxee rek métier yi nekk Sénégal tey moom boo toogee sax amatoo exemple tey maanaam yenn âge yi pour def exemple sport bi mais métier bi moom mi ngi sa bopp toujours mi nga toog former ay jeunes yi nga xam ne nii tey suba dañuy am ay exemple ay taxawaay yi nga xam dañ koy am au niveau de la commune kon côté boobu aussi Cheikh am na ci ay réflexion yu am solo waaw côté boobu moom vraiment ñun jël nañ ci devant bu yàgg. côté violence ah loo ngeen ci wax. élection eh, yi samedi la le 23 incha allah bi yàlla ñu may fekkee ko ñun ñëpp ñu daal si dem jàmm ak salaam ci côté violence bi ñu koy nemmeeku fan yii ah, deux nga ci lan ngeen ci wax yéen ñi nga xamante tey yéen a nekk ci parti politique waa merci beaucoup euh, li ngay wax ni dama ciy mën a tontu parce que démb ci guddi rek mu ci mujj ñi nga xamee ni tey exemple tey dañuy jàpp ne tey ñoom ñooy suñuy adversaire muy euh, waa Benno démb fekk nañu fi exemple avec le maire docteur Cheikh ak euh, jabaram Anna Coulibaly ñu def benn discours pour la jeunesse benn discours pour waa Djiddah Thiaroye Kaw di leen remercier parce que dafa amoon suñu benn responsable bu mag bu ñuy wax Assane Diouf bu defoon benn meeting au niveau de Aynoumane bañ fa jógee fii mooy suñu point départ fii mooy arrivée bi ñuy waxtaan ñoom exemple jeunes yi nga xamee ni tey ñoom ñoo nekk ci beneen côté bi ci waa bennoo yi mooy jeune Mourou Gueye ba ñu ñëwee dañoo génnee ay jaas yi génnee ay lu ne la ñu génne comme arme pour attaquer ñu mais aussi ñu nit am nañu intelligence taxaw ak ñoom gérer leen ba ñu génn exemple li nga xam ni tey moom mooy suñu secteur ñun côté boobu aussi organisé wu nañ ci nous sommes pas violents ñun dañoo nekk ay nit ñi nga xam ne ni toujours lépp lu ñuy def rek dañ ciy jiital xel moo tax bëriwul lu ñuy xëlu lépp lu ñuy def rek xel lañ ciy jiital ba tax na loolu le maire docteur Cheikh moo ñu forme noonu waaw. merci beaucoup am na nag ma ci bëggoon dolli. très bien li ma ci bëggoon dolli mooy euh, plaisir la bu rëy ñun euh, fii lañ juddoo jënd caare kaw màggee fi euh, édifice bi nga gis nii complexe bi nga xamante ni moom lañ def nii amoon nañu suñu benn mag mi ngi fi mu ngi nii taxaw suñu nijaay la suñu mag mu tudd Abdoulaye Camara ancien international la football na Jaraaf football na équipe nationale Sénégal édifice bi moom la ko maire bëgg a tuddee te moom sax yëgu ko instant bi kon loolu mu lu rëy ci ñun. mu nekk un visionnaire parce que nit ñi d'habitude dañuy bàyyi ba nga dee ñu soog la tuddee wala ñu bàyyi la ba nga xam ne kenn xamatu ci dara wala mënatoo dara ñu soog la tuddee mais maire deful loolu te Ablaye Camara mi ngi nii mu nekk ki nga xamee ni amul lu mu deful ci Sénégal football na partout ci àdduna bi kon loolu bu ñu amee tey mu tuddee loolu mbégte bu rëy la ci ñun ci jeunesse bi merci beaucoup. ok Mamadou Kalidou Anne président commission Allé Marché Djiddah Thiaroye Kaw ñu gën ma xam ci Kalza Anne ah. merci beaucoup.